merci merci Abdou euh, euh, Diegui dégg nga li nga xam ni moom la Abdou wax boo ko boo ko boo ko boo ko déggee dafay mel ni itam. je suis choquée waaw dafay dafay mel ni itam lu mën nga choqué mais lu yanu maanaa lay wax. non il la bonne foi non non non defal naa joxe na exemple ci wàllu pneu yi. loolu lu ñu mën a comprendre la ku ne xam na ni boo demee di jënd pneu bu bees bu ñu la ko jaayewul cent mille jaayee la ko trois cent mille wala plus de presque mu jege quatre cent mille. ci dëkk boo xam ni daanaka nit ñi dañuy taaba taaba di góorgóorlu. Mhm. loolu itam bu fekkente ni jël nga mesure yooyu war na am loo lu koy accompagner wàll boobu. Mhm. mais itam ku ne xam na ni ay ay mesures moom yu mel nii ci diir bi ñu ko jël est-ce que populisme rek taxul. maanaam ñu dégg leen ak itam ñu fàtte yenn affaires yi est-ce que du loolu moom moo ko tax a jóg comme ni mu koy expliqué. Euh, PAM ngañ état ñu ko waxee. Mhm. populisme sax du fa waru fa jëggee PAM ngañ dafa am lu jiitu ce qu'on la bonne foi. Non, je suis très étonnée que quelqu'un du Parti démocratique sénégalais qui ont la spécificité d'être un libéral di waxee neen Pape Ngagne état bu situation amee de crise état bu taxaw légiférer taxaw comme un état kuy taxaw Pape Ngagne tey jii président Macky Sall dafa waxoon dañu damay yokk euh, gaz damay yokk courant wala damay yokk électricité donc accident na am am Euh, cent personnes yoo xam ne dañ ci gaañu am quelques personnes yu euh, cinquante quatre wala xaw ma quarante personnes yu si dee est-ce que président Macky Sall dafa mën a programmer lool non il faut arrêter. l'État y a une situation de crise qui est là. l'État avait l'obligation jolof jolof nga nag na man. déglu rek dafa nag waaw may ma rek tey jolof moo fi aay waaw tey nag jolof jolof nga na man te dañoo nekk nag ci situation boo xamante ni. laajul politique. moo tax duguma dàggasante. dama bëgg rek qu'on s'arrête sur les principes. le principe c'est mhm. c'est la responsabilité étatique qui est en moom responsabilité état. moom la ñu soxla ci yenn situation yoo xamante ni comme li nga faral di wax ay la yëwan dafay ëpp loo xamante ni individu bi kese la. Mm-hmm. mooy dafa laal askan bi. Pape Ngagne fi may njëkkee mooy damay féliciter soxna xemes mi ma gis ci télé bi. Mm-hmm. le ministre de la santé mu doon benn jigéen bu taxaw foofu am na dëkk yoo xam ne et dans les pays les plus développés ñëpp gis nañ le taux de mort au niveau des accidents. tali bu gënee bees mu gën a tàllal rek gis nañu nit c'est l'être humain qui est comme ça le nombre de morts par année nañ ko wax France wala ñu wax ko nga fa nit ñu mbëkkante alors tey jii bu am na ñoo xamante ni bu ñu gaañoo dans les pays développés balaa état di réagir assurance la ñuy wax na ko fay l' état a tout ce qui concerne santé si ñi nga xamante ne tey gaañu nañu foofu yëkkati ndàmpaay jox ko ñi nga xamante ni dañoo ñàkk bakkan bi mu fekkee dara mënul remplacer bakkan waaye c'est la responsabilité de l'État Pape Ngagne je veux qu'on de bonne foi te am na loo xamante bu taxawee muy le transport qui transversal laal ministre des forces armées laal ministre des finances parce que affaire assurance foofu la jëm mu laal loo xamante ni laal immatriculation muy ministre du transport mu jóge foofu mu laal plusieurs ministères laal consommateur bi laal ñooñu ñëpp ñu woo leen ñu toog tey Macky Sall mënoon a def conseil. ci benn fan jóge foofu mënoon na ko bañ a def te dara du ko ci fekk. ci benn fan il prend toutes yoon may nag ko mais il l'a pas il a demandé à ce que l'ensemble des acteurs mooy ñi nekk autour du transport muy les ministères qui son transversaux muy ñoo xamante ni acteurs yi la muy les consommateurs kaay leen toog ñu waxtaan ñu waxtaan ba pare état nag jël responsabilité ñu bëgg ka bañal dama bëgg ñu taxaw nag seetlu dafa yomb taxaw di wax corruption dafa yomb taxaw ni mën a mën a ña ko waxoon ñëpp taxaw ba tubaab yi posé question dañoo taxaw commencé lox te dañoo waxoon duñ taxaw devant les les télévisions ou les radios qui sont étrangères arrêter su doon man day fekk joxuñu la siis bi ba nga toog si ñi tànn bu ñu leen joxee siis ba ñu toog si ñuy wax ci baatu askan bi ñu may leen pour ñu taxaw nag mu neex nag suñu borom nañ leen ko kenn ñaanul yàlla musiba dal ci kenn waaye mon l'a dit tout à l'heure yoon ba am dafa bokk yoon yi a baax kenn mënul taxaw tey ne accident bi c'est la responsabilité directe de l'attaque qui est engagée au contraire déjà c'est pas une voiture boo xamante ne étatique ma ñëw ci les avancées qui ont été faites Dakar Dem Dikk ñëpp gis nañ ko da ngay nekk de bonne foi nga taxaw wax fan la ñu fekk Dakar Dem Dikk ak fan la ñu yóbbu Dakar Dem Dikk Dakar Dem Dikk doon daw directement biir Dakar ñu indi Sénégal Dem Dikk kii dëkk ba Matam man ma jëm ba Podor ka jëm axe yu bëri ñu dégagé ko muy nekk Sénégal Dem Dikk ñu ni passé nañ foofu dañuy def Afrique Dem Dikk Pam Ngañ nit dañu dugg léegi oto Afrique dem dikk dem àgg ci Gambie jóge fa dem ba Côte d'Ivoire jóge fa dem ba Niger mais waaw góor dafa baax ci dox doxalu état nag Pam Ngañ et je l'ai dit tout bi may bi may introduire dama ne am nañu naqar fukki bakkan fu ñu rot dafa metti waxatumaa 40 te ñëpp dégg nañ ojo bu mujj bi ku jigéen moo taxaw di wax may leen ma ma xool sama doom dernière fois balaa may génn àdduna kon waxu politique dañ koy pousse nee ñu Ngañ nañu taxaw nag ñu xool dëkk bi comme li ma la wax responsabilité de l'État est engagée en premier et en dernier lieu muy amoon muy en waaye nag Pape Ngagne nañu defaat introspection personnelle comme li ma lay wax nomination booy tànn nit Pape Ngagne mooy asamaan su xiin mën naa taw mën naa bañ a taw mooy jigéen bu ëmb mën naa wasin mu indaale bakkan mën naa bañ a indaale bakkan. lan nga bëgg wax ci. ma li ma bëgg wax mooy président Macky Sall il peut voir Diégui Diop et nommer Diégui Diop directrice de la protection des enfants wala du transport alors que ma yore dama nekk ku lan nga bëgg nan lañ koy xamee tànk li ma bëgg a wax mooy am na loo xamante ni ce sont des agents de l'État ñoo xamante ne am na ñoo xamante ils sont corruptibles d'autres ne sont pas corruptibles waaye nañu nangu nous sommes issus d'une famille ak société boo xamante ni ku nekk foo dem ci poste sa yar nga fa yóbbu nañ la yare ak la nga xam set nag toujours la responsabilité encore comme li ma lay wax incombe à l'État waaye ñun ñëpp nañu xoolaat bu yàqoo dëkk bi ñun ñooy yàqule bu baaxee ñun la baaxal il taxawaat ñu xool ñu arrêter la corruption à son plus haut niveau moi je suis pas d'accord quand on dit que avec la Cour des comptes je suis désolé c'est dans la transparence parce que ce rapport-là ne pas sortir concernant la Covid-19 nañu wax waaw góor bala ñu bala ñu dem ci Daouda si kon nag euh, maa ngi koy yem balaa may foofu damay terminer ci benn yëf je dis l'État mm. ne peut pas donner un gendarme ou un police derrière chaque individu chaque jour ma wax ko oto bu nekk mënuñu pas pas bu ñu dox bu ne ñu teg état ak gendarme nañu xoolaat taxaw seetlu et je ne dis pas c'est la population qui est fautive encore une fois bu ma kenn wax loolu ma waxul damay la responsabilité elle est partagée à plus d'un titre et que l'état dafa nekk en amont comme dafa nekk en aval waaye ñun ñi nekk ci biir yi seq ko muy ñu passager bi man bu ma chauffeur man léegi dama dugg oto boo xamante ne dañuy teg juróomi nit alors que ñeen di ma fa toog na ñi ñi bañ d'accord donc la responsabilité elle la responsabilité moom elle est partagée. sax je pense que yow mën nga ko mën nga ko nangu te ci sa biir introduction sànq tout à l'heure mel na ni lu mel noonu wax nga ko mais loolu moom kenn mënu ko dàq maanaam tey jii loo bëgg-bëgg état defaral la itam yow ci ñi war a defar ci nga war a jiitu bu fekkente ni bëgg nga permis nga jaarale ko ci yoon bu fekkente ni ñu ngi lay laaj xaalis nga bañ ko joxe. mais yooyu itam dafa war a nekk taxawaayu citoyen bi. taxawaay boobu bu fekkente ni am na nga matale ko. mais je pense que yu mel nii itam dina gën a mën a wàññi. xam nga hôpital bi laa fàtte ndax dama lay fàttali nañ ko wax personne n'a été évacué sur Dakar. d' accord loolu Kaffrine boobu bu amuloon hôpital bu toll noonu. kon xëy na dee yi dina woon gën a yokku. d' accord Daouda waaw euh, Pape yaakaar naa ne sama sœur si jéggi li ma koy wax rek moom mooy euh, xam nga euh, njiitum réew mi askan wi dañoo jël li ma wax seen doole ak seen sañ seen droit lépp dafañ ko ci benn carte jox ko. nangul ko ko nag. bu boobaa nag yaakaar naa ne surga askan wi la askan wi yoral ko lépp kon yaakaar naa ne nekk fii nañ ko gërëm ndax def na lii nañ ko ah. gërëm ndax def na laa yaakaar naa ne loolu du li nga xamante ni moom mooy euh, cëru askan bi li nga xamante ni moom la askan wi di xaar ci état mooy ñoom askan bi ma ko waxee sama njëlbeenu kàddu bu fekkoon mën nañoo yor seen bopp teg seen bopp ci yoon kon état du am mm-hmm. yaakaar naa ni les théoriciens di droit euh, Euh, naturel comme ay Jean-Jacques Rousseau ak ay euh, John Locke ak ñeneen ak ñeneen bu ñu lay jëlalee euh, li nga xamante ni ay ops état nature bi ñu nekkoon nga xam ne ku nekk. ak sa sañ-sañu bakkan lu la neex def rayante am amul état amul pouvoir. public amul ndumbelaan quoi ndumbelaan tax ba tax ba muy jur ay jëye yoo xamante ni bu wéyoon amaana askan wi yëpp ay jeex ci lañ taxaw. def contrat muy pacte d'association pacte boobu noonu contrat de dessaisissement la ñu dessaisiru seen droit seen force délégué lépp bi nga xamante ni moom moo état nekk kat tëralal ñu ay doxalin ak nekkin waaye nag nga jël li nga xam moom la ñu wax la puissance répressive de l'État muy alkaati yeeg yooyu ak yi ci aju tribunal yeeg yooyu ba nga xamante ni ñun ñi gaa ñàkk a mat moo tax ñi dénk la suñu kàddu dee ñu jaarale ci yoon xam loolu moom moo tax bi jéye ji amee ñu def conseil interministériel waaye boobu jaan ji romb na ba ba noppi te saa su nekk noonu lay dem dañu nekk ba jaan ji romb nit ñi seen xol jóg bu ko defee ñu ne nañ teg commission ngir jël ay dogal yoo xamante ni. di doon fi amati loolu nañ ko si daaw de mënta ñàkk de. wala ñu teg mais Pape li ah, li bonoon mooy jëye ji am ba pare te amul ay mesures d'accord yu ñu ci jël. ak mu nekk yàlla maanaam ñu ne non c'est pas grave. après vent la dafay jàll. mais gouvernance waaw. dafa war a tegu ci li nga xam mooy prospective.